sonn bu bëgg a dee dañuy dem dëkk ak dëkk di jënd jën maanaam Kayaar Mbuur Joal fu ma dégg daal man su ma côté man fu mu dégg dañuy dem jënd jën ñëw mais géej gi dina am jën mais ça dépend yenn saa yi mu am yenn saa du am xam nga te du am toujours encore te gaal yi fi nekk bariwul genn wàll bi yëpp parce que amuñu kee affaire yooyu te jafe boobu la am moo tax dañuy dem campagne ñenn ñi dem dëkk dëkk kon tey jii bu ñu demee ba am kee daf ñuy arrangé ñun ñëpp jàppale dëkk bi yëpp boo leen si mënee jàpp ngeen jàppale ñu si ngeen jàppale ñu si su boobaa ko buggee moom mënu ma ko gisee parce que dëkk boo gis am na dëkk am na ku fi nekk koo xamante ne war na mën a wax ak yéen si loolu yàgg na waaw bu ma seesee fii ba léegi parce que sama jëkkër mool la dama ko doon jaayal jën ñàkk jën bu ñu ñàkk moo tax yesaay ma génn dem jëndi ñëw su amé ma jaayal ko yi ñaar ngeen ko jëndé ki ndam bi yu seer lañ koy jëndé ma ne ko jëndé bi ma ngi ko jëndé fukki junni ak ñaar fukki junni ak ñaar waaw warañ bi droite bi bi ma ngi ko jëndé ndeysaan sa jaayal ko juroom ñaar junni ndeysaan jaay la ko juroom benn junni taxawul benn place dal jënd bu yombé ñaar lay jar bu yombé ba yomb mom ñi man na jar 20000 bi la la wax bii eggaguñu fofu bi mom lay waaw ah, parce que ça dépend si gi rek parce que mën nga dem tey jën am suba nga dem jën du am gannaaw suba nga dem jën jën bañ am yooyu yëpp day am. macha allah jigéen ñi moom bëgg nañu liggéey liggéey rek la ñu bëgg jigéen ñi góor ñi yëpp yem ñëpp liggéey la ñu bëgg ndax kee bu amee góor dina liggéey jigéen dina liggéey ndax ñun ñi di jënd jën ay jigéen yoo ñuy jaayeen saay seen gaal yi ñooy teer am fa ay gaal ñu teer ñu jaayal leen jën suñu jaayee ñun ñi di jënd ñun ñoo leen di jox payen 1000 francs 1000 francs boobu yow mi doon jaay yow yaa ko moom kon loolu donc ñun xaj na su ñun moo tax man la bu fi amee jigéen yëpp dinañ liggéey marché bi tamit même chose marché bi tamit bu ñu si ñëpp mënoon jàppale waa dëkk bi ak ñeneen ak ñeneen dina baax parce que dëkk bi ñun ñëpp ko bokk yàq xaju si defar moo baax suñu sañoon ñëpp dañu ñëw si marché bi di jaay ñëpp dëkk bi mën a naat ndax marché bi tey bu tasee dëkk bi du mas a naat du mas a am marché mais bu ñu ne ku jógee dëkk dëkk ñëw ne ma xaaral ma def yaa ma neex si biir dëkk bi kon dëkk bi du naat. marché bi waaw ñu sañoon nag marché bi dinañu jàppale ñu def ko marché bu mag ñëpp ñëw si marché bi di jaay dëkk bi mën a naat ku nekk jël sa ku bëgg a liggéey liggéey ku mëgul liggéey nga toog sa kër. tamit leneen ak leneen noonu ku ñu mën a taxaw daal la ñu bëgg ñu waaw pour ñëpp lig ay 1000 francs 500 yooyu loo gis rek nga jaay parce que poche yi duñu benn saa saa nga génn saa saa nga daanu jaay moom moo mel noonu surtout jaay jën moo gën a garaw fii bu mu lay mayee noonu la koy jëlaatee mais surtout moo gën toog di xoole waaw suñu mënoon daal ngeen jàppale ñu si kaw ba si kaw ba ci suuf daal. jën yi seer rek mais tam day jékki jën am mu yomb jékki jën seer instant yi mu ngi lay jaayee quatre yi mi francs te bu bu dee am na carrément ñett yi sax mën nga ko jënde cinq cent mbaa ñeent instant yi euh, waraañ bee am waraañ lay jënd mhm. bu dul weeri koor sax jënd day jékki seer jékki day jékki am jékki seer damay marché bi daal yàgg nañ fee jaay waat ñun bu ñu indee feeg léegi mat na ñetti at ndax ñu ngi daan jaay ci tali bi àngal ba ñu indi nu ci marché bi ne da ngeen di jox marché ah marché bi nag bi ñu fi ñëwee ñu commencé jaay ñuy bedd ko di jaay si kër yi dëkk bi ñuy wax ndayaan di ñëw fii di dugg si kër yi di jaay. marché bi dafa xat moo tax na. marché bi xatul ndax place yi yëpp dañ ko joxe woon te kenn ñëwul. mais marché bi tuuti la. marché bi baax na si dëkk bi. amuñu ndox amuñu duus ñuy fay nag ñu fay ba fay ñetti at ñu téye suñu loxo si weer wi na dootuñu fayate boo xëyee 400. moo la yobbu nga fay saret booy ñëwaat 400 boole ko boole woon ka juuti ndax mu métti lool. suñu dëkk bagage yi du fanaan bu fanaane dañ koy sàcc. man maa ngi jóge si yoonu Ndeyaan si ginnaaw gendarmerie bi ñii si tali bi xam nga suñu kër yaa nga fa dëkkunu fi. dañuy ñëw di jaay si rek di dem comme da ngeen nu indi maire bi daf ñu indi si marché bi ñu ñëw di jaay si di dem suñu nawle yeneen bañ na dootuñu ñëw gisuñu benn njaxte weer bi da ngeen bañ a fay bii moom dañu téye suñu loxo bëgg ñu ñëw ndax danoo dem si ñoom ñu bañ ah ñu téye suñu loxo foog ñu ñëw taxu ñu ñëw ah bant kon bi nag bu paasee ku ne delluwaat sa place ba xam ndax dina ngeen dina ngeen ñewum dépp way marché bi bëgg ngeen yaatal ko hein bëgg ngeen yaatal ko ma bu nu amé mu yaatu kay mu baax ndax koy commencé da ngay commencé jaay bi fu mu toll yomul hmm na li may jaay yomul ci marché bi li may jaay ni bo demee jënd nga jënd say saako transport ñew lo jaay perte nga da amatu bénéfice yomul manam la mo ci xéx ko ni ci li ngay jaay tamaté yombul fu mu né ndax li tax ndugg dafa am ndugg amatul léegi bu jëkkoon ndugg yomb na fi mu nekk ndugg yomb ndax soo demee ñun caaray la ñuy jënde soo jëndee caaray kaso bi nga jënd ko ñaari junne ñeenti téeméer mooy douze mille bi nga paas ñëw yow sa diggante say paas yi ak say bagage rek sept mille lay doon ku si mel ni man nag xam ne damay jël oto sa marché ba ndax géej gi ma si boole kërëbet yi ñaari junne may indi sama kër bu ñu continuer fii dangay ngay sa kër soo xëyee nga fay sarat 400 mu indi la sa bagage bu ngoonee nga ab fayaat 400 mu yobbu la ñii gën a jegeñ di fay 300 mu ngi nii amuñu lamp te pante ko dan jaay daan jaay si guddi gi benn yoon la ngeen defal lamp pante ko ba paase ñu bàyyee ko bii moom wax naa ba sonn mu nekk waaye bu ñoonu dimbali woon si duus dimbali nu si ndox ak fu ñuy denc même lii buñ ko defa woon mu baax waa ne marché bi booba samay yaay lañ ko indiloon ni ñu indi woon fii nga jaay jaay mu tee nga daw dem def raatuña marché bi marché booba fi nekkoon ba léegi moo fi ne ñu indi nu fi nag ñu defe ne bu ñu ñëwee nga def ak ndëgate yoo yooyu nañu ba sonn nag